léegi su ma ñëwee ci combat yi nga xam ni moom fi jot am ci diggante Ama bale ak Modou Lo nekk na combat am combat bu mag la su ma ci ñëwee loo may wax. waaw comme comme tey nu ma ko doon imaginer ah. comme tey nga war a jël jeeg bi may ko xale bu ndaw bi noonu laa koy imaginer Modou Lo. dégguma dégguma bu baax de. comme nga war a jël benn jeeg may ko alliance alliance xale la jànq la nga war a jël jeeg bu sëy ñetti yoon ñeenti yoon ko may alliance. dégg nga ma <laughs> jeeg la Ama Baldé jànq la. loolu kay jeeg la Ama Baldé la loolu du komba fu ñu bëree mu daan ko bu ñu xeexee mu daan ko téere laa lay wax nag. fan nga teg loolu. su ma leeree woon ne ni Ama Baldé di daanee Modou Lo leer na ma su ma dee tey damay dugg àjjana wóor na yàlla damay dee tey man leer na ma Ama day daan. li nga la xanaa. su ma leeree woon ni muy daanee Ama bale ni ni Modou Lô di daanee ni Ama Baldé di daanee ni ma leeree nii su ma leeroon tey su ma dee dem àjjana damay dee tey. est que xam nga ne waa Pacelle tëdduñ benn yoon di nalaw ba xalaat Ama Baldé. waaw parce que ñoom foofu lañ tollu amaa xam ko yombul ak naqaree xam billaay lu garaaw laa lay wax ak a naqaree xam Ama daa juddoo ci bëre yaroo ci bëre màggee ci bëre kooku bëre jaaxalu ko. Baye Fall bi ndooy ndooy bu Boy Niang da doon ngénte démb quoi sama xarit bi Baye Fall bi maa lay bëggee yàlla na doom ju màgg am ndey ak baay barki sëñ Touba sama waay la sama xarit la waaw.